ci haut patronage bu njiit réew mi son excellence Macky Sall bu premier ministre Amadou Ba monsieur Abdou Karim di jëwriñ gi ñu dénk wàllu njënd ak njaay mooy yëgle ne suñu réew di Sénégal dina bokk ci exposition internationale horticulture bi war am ca Doha ga ca Qatar ñaari fan ci ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 2024 soxna Zahra Iyane Thiam mi commissaire général section bi war a taxawul lépp lu soxal teewaayu Sénégal ci xew-xew bu am solo bii nga xam ne guléet muy am ci Moyen-Orient mu ànd ci ak ministère bi ñu dénk affaires étrangères ministère bi ñu dénk finance ak budget ministère bi gàll wàllu mbay mi ak ministère bi ñu dénk wàllu environnement ngir suñu réew bokk ci xew bi ci anam yu mucc ayib moo waral ASEPEX di ci liggéey bu baax a baax ak kuréeli banqaaso ci public bi ci parapublic bi ak képp ku mu ñeel administration territoriale bi direction horticulture organisation professionnelle yëngu ci secteur bi direction eaux et forêts université Cheikh Anta bu Dakar centre de recherche en économie appliquée école des arts ñi yëngu ci wàllu aada cosaan secteur privé bi ci réew mi chambre de commerce yi ci réew mi chambre de métier yi ci réew mi artisan yi ak média yi tey jii yéene ji ñu bokk mooy xam ne wàññi désertification ak lorange yu mag yi muy jur wareef la ci àdduna bi yépp njiit réew mi Macky Sall ci gis-gisam ci li ñu naan PSE vert dafa dogu woon ci Sénégal gu naat ak gàncax am yéene ju mat sëkk ci garantir luy gën a ñoŋal dundinu askan wi ak kaaraangeeg génération yi di ñëw expo internationale bi nga xam ne thème général bi mooy désert vert environnement li ko tax a jóg bokk na ci xamal xiirtal wane yoon ngir ñi ñëw ngir bokk ci xew-xew bi ak ñi fay ñëw ngir seet si ci ay pexe ci saafara yu yees ngir delloo ginnaaw lii ñu naan désertification waaye it am environnement bu wér sax ñu koy jaare ci bonk yu ci mel ne mbay mu dëppoo ak jamono yeete ci wàllu alam gi ak yu ne mel lu toll ci juróom-ñett fukki réew ak ñetti millions yi visiteurs ñoo ngi leen di xaar ci ndaje ASEPEX bu weesoo wane ak fësal gi mu nar ci PSE dafa fas yéene fexe ba ndajem dowaam yi doon barab bu opérateur yi mën a jariñu bu baax a baax ci wàllu jëflante ak ci wàllu koom-koom ASEPEX une boussole pour le monde export